waaw sama gaañ nangeen def kii de benn yoo la woon ndeysaan mu naaw ba solo de dellu seen kër dem seen kër ne ko fekk maam di toog mu ne ko waa maam waa maam ñun xanaa ñun man mii de ah ci yax bu rëy laa bokk maam di ne ko ah xaddi waaye loolu tax mu ne ko man kat fu ma romb ñu may tàccu naan ma nii dama tàccu naan ma nii dama tàccu naan ma nii <laughs> maam di ne ko <laughs> bu yeboo tàcc yooyu de ñoo fi jëlee sa ndey jëlee fi sa bàyyi moo nga moytu leen.